ah <laughs> mami Wengere Diop ah bi nga xam ne ah yaay sonu Mbacké maa ngi lay di la sargal. maa ah, di nuyu sa bàjjanu Wengere yi sa ah. yaayu Wengere yi ah sa maanaam maanaam daal maanaam daal. maanaam daal xam nga li ma li ma tiital <laughs> am na waaye bu loo famille bi yëpp man xam nga lu ma tiital. Eh. boo njëkkee woon sama yaay sax du ma jaaxal mais tëbee ci sama bàjjani. waaw bàjjani kon bàjjan awa jóob ngay attaqué tey. ah dafa ndànk bàjjan awa jóob day jënd ay. xam nga man mën naa wax comme xam nga ne day jënd ay comme xam ne day jënd ay ndax moom damay fare rek moo a ne ma ah di ngeen mën <laughs> yaay dégg ngeen xanaa ñu doore ko nañ daan dooreeti rek waxati ne jërëjëfati Cheikhul Khadim sunu yaakaar sunu maam yi di wax ne yaa hmm, <laughs> boo ne woon famille Wengare moo lay njëkk attaqué tey di ko wax ne maam booy loxo yi dellu seeti na di sàkkooti ñaan bu baax a baax <laughs> du nuyu nag sama yaay Kinushka di ko wax ne yow xam nga ne Pape Cheikh moom addunaam yëpp nii rek la ko jàppee <laughs> waaye xam nga ne yow doo yaay ji koromp kenn ak sama yaay Nafi di nuyu nag sama yaay euh, Juma Jeng Jaxate gis nga ko barki démb bu jëf ju ji mu def xam nga Faris rek moo mën ñu ne bëkket nga dem def chèque dem joxe te loolu la def benn euh, dinaa la euh, fukki dinaa la benn am moo ma ko gënal te moom loolu la def kon yaay Juma ngi lay ci santaat bu baax a baax di nuyu nag sama bàjjen yeeg sama yaay Jóob yaa ba xarit maam yeeg Assane Maram Penda ñaan yëpp maa ngi leen di nuyu waaye nag di nuyu sama parrain wu association mm-hmm. muy Serigne Cheikh Thioro Mbacke mi nga xamante ne yor na xalifa kàddu xalifa gi Mbacke Balla maa ngi lay nuyu te di la ziyaar te di la wax ne association bi li nga ca def rek ka ca nekk moo taxit ñu ngi lay xam nga comme man nag fi mu toll nii na ñibbi na këram mhm. waaye man comme Cheikh Abdou Karim Mbacke sa teranga ji nga xam ne ndaw moom mooy jokkale diggante bi yaay diggan xanaa di nuyu yaa astu nag sama yaay boobu ndax dégg nga Baye Cheikh xam nga li mu wax moom day tooñ rek ndax bu fekkoon ne kër yaa astu moom entrepreneur la xam naa kon ñi nga xam ne bëccëg gi fa la ñuy kuddee <laughs> dinañ fay ba entrepreneur la Baye Cheikh lu wax na ko nee na ak kër Adja Daba Jaxate entrepreneur euh, moom xam na ne yaa daba sono lu ko ci dara sos rek ay àddunaam waaye baax na bu ko bu ko maam day soxna jàppee nag mu dee <laughs> yaa way ñu ngi lay delluwaat di la ziar macha allah ba mi yàgg fi lool te wér macha allah macha allah ñuy am mbégte lool toog ak yow fa tubaakalla macha allah waaye xam nga ni mbégte gu ko ëpp wala boobu bu ni mel moom laay am toog ak sama doomu bopp. Mm. chercheur bu mag bi ah, ah, ah, nee na ma ba yokku ci euh, chercheur. non man chercheur laa ko jàppee fi tool yi nii ndax am na lu muy wër. bu ko gisee réew mi toj. ah inspecteur Ndoye Bane maa ngi lay nuyu di la ziar di la sargal fatawaakàlla macha allah di nuyu euh, sa kuréel yi nga bokk yëpp bokk na ci FBI bokk na ci CIA. bokk na ci Mossad bokk na ci dikk ma nag ba ma waxee RG renseignement généraux ba léegi ñameetuma la ah <laughs> Fatuma Kalla macha allah maa ngi nuyu nag sa waa Pire Sañoxoor mhm. di nuyu sa wayjur yu sell ya Fatuma Kalla macha allah mhm. ah sa soxna su baax si ak képp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo Pire mhm. maa ngi lay jox sa wàccuwaay Fatuma Kalla macha allah démb ba léegi nag dafay xale bu góor ngay def xam nga daal lii Babacar nee na bëgg na ci parce que jiin la ba pare xam nga Babacar a ko ko abal nag Babacar bëgg na ci bëgg na ci xam nga jiin bi ça di dire da nga def yëpp jiin ah, Babacar doon na ko àbb ci fan yi mais eh. waaw ko abal waaw waaw ba pare def lu lunette yu baax Babacar bëgg na ci nag Babacar bëgg na ci surtout ak téléem bu lëndëm bi Babacar tey loo ko baax na Babacar su ma ko joxee <laughs> téléem bu lëndëm bi balaa ma ko ci yokkal le <laughs> li li li ñuy wax su ma ko joxee daal li ñuy waxtaane tey lay wuti kon ah, ah, maa ngi lay ah, nuyu baat ci thème bi lay dugg Babacar bokk de on ak off mooy mais kër gi ñi bokk ci thème bi bokk bari leen de. Ah. ñoom vieux Babacar. Ah. Ah, am sax moom démissionné leen eh, léegi. Eh. ayca bisimilah bisimilah jaajëf saa lay di ziar euh, Père Babou ak mame ak maamam. di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew bi ñëpp. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. ziar sëñ Moustapha Cissé mooy sunu xalif ba ci Pire. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. moom Paara Jibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub. ak ki nga xam moo di sëñ Moustapha Ka sunu imam ba. ak sama benn ñu ngi ko wax Baan ak Baye Baddo Dieng ñoom ñëpp ñu ngi dëkk fële ca Pire gu rëy di ay kilifa ñu leen di ziar bu baax a baax taa dégg ngeen ñu mm. fas yéene tey moom yaakaar nañ dinañ xuus xuus xuus bu baax a baax dajjiwaat yeneen paquet li li kii naan li mbay gay fay naan mm. xaw ma lan damay xuus jaar eh, bu dee lan lu ma la wax bi ma ko menacé ñëw na <laughs> pour defar pour defar pour defar pour defar yu lëndamam la man samay menace laa yore uh-huh. wax naa uh-huh. <laughs> moom xam na ne dangay lëndam bëgguma ko moom ah, xam na ko <laughs> fatumakella macha allah li ñuy def rek euh, mooy dem seeti Zeyna ànd uh-huh. ak euh, jinne réalisateur vieux Diouf vieux Diouf Anissé sama doom. maa ngi ni tout à waa ci lool ne. maa ngi ci jàmm. dégg naa ci yow de waaye démb moom ni démb moom ni nga ma ah. tàggoo moom. ah démb ni nga tàggoo moom ma maanaam maanaam genre doo meer naan di te bàyyi ñu ñu dem. <laughs> c'est que nag dëkk bi li fi xew dafa bari. ah yaa ngi ne rek xale yi xale yi xale yi waaye meer yii. ah lañu bëgg. ah ak la ñuy ut ci xale yii. ah Tataguine paquet yooyu faw nga dajji ko. ah xanaa ngeen dajji doom. faw nga dajji ko <laughs> kon Mame ak Ndoye Bane Tataguine di leen ko dajji. ñii su ma leen bàyyi ñu fëq réew mi. Ah. ah waaye tata dégg nag réew mi fëq ba pare ah, ah, ñoom ah, jottali dong la ñuy def. ah ñi jottali rek jottali rek la def waaw yaa ngi sax nañ la dugal ngay wax ngay wax sa impression. d'accord tata ba pare. waaw tata dégg naa la kon yaa ngi ci téléphone bi gannaaw ba nga nuyoo yaa ngi ci Facebook bi ay ca bisimilah. dëgg la tata dégg nuyu leen nuyu téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun. Mhm. tata dégg comme chaque jour nag ñu ngi ci euh, téléphone bi numéro yi nag téléspectateurs yi miin nañ ko. Mhm. di 88 628 22 22. 88 628 04 05 ak 88 628 65 65. bu fekkee ne nag euh, da ngay woote bitim réew bëgg jokk groupe Futur Média ak lu mu mën a doon nag rawatina nag euh, wareef. Hmm. da ngay def rek double 0221 33 841 tata Degen 22. 99. Mhm. Mhm. bu weesoo loolu tamit xam nañ ne page Facebook bu wareef macha allah mi ngi màgg. Mhm. Euh, am na fi solo lool lool te nit ñi safoo nañ ko tamit. Euh, di wareef da di taper rek euh, fi si moteur recherche Facebook W A R E E bu ngeen ko defee rek di ngeen gis li nga xamante ne moom mooy page Facebook bu wareef. comme tous les jours nag dañuy poser question internautes yi. waaye tout à fait question bi nga xamante ne dañ koo poser démb dafa lëmbe réew mi. ndax ba léegi commentaire yaa ngi continuer te daal question la tamit boo xamante ne tënk na thème de la semaine mm. ba tax na tey ji du def lu dul jukki wàcc rek mm. euh, quelques message ci kanam tuuti ñu ñëw euh, jox ko téléspectateurs yi ñuy seetaan ak ba tey ki nga xamante ne moom moo gagné première dépense di dépense su euh, mami tata Degen ci kanam lay doon. kontaan naa ci yow Zey te tamit soo ñëw tamit indaaleel say gi ginnaaw léegi dajji paquet moo fi xew. Ah. te yow fu mu ne nii gis naa ni léegi waa Régis sax dañ lay dénki paquet. waaw Xadija dafa sax léegi man looloo ma jaaxal. am non tempee graaw ñëpp ci am paquet. <laughs> ñëpp ci am paket ci kanam tuuti. di sàkku ci ñoom ñaan waaye delluwaat di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne yal na yàlla ñor di seen fan wéral seen cër ci barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñuy àndaat ak yéen ba tey ci seen émission bi di wareef ci télévision Futurs Médias seetu askan wi ziar kilifa aada yi ñaan buur bi nga xam ne lu fi sotti rek ci coobareem la moom yaa rabbi yal ñu mottali lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp lum ñu ci defal rek yal nañ ko muurloo ci barke alquran al karim ñuy woy nag di nemmeeku malaati ba tax ñuy dugg ci hôpitaux yi dugg ci dispensaires yi doxantu ci case de santé ak poste de santé yi doxantu ci néegu lënd mi ndax ñàkk axankay am na ba ci mbedd mi mhm. nemmeeku bu baax a baax malaati waaye dellu rek di ñaan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 wax ku ñëpp di jooy le doo mhm. jooy mhm. nañu jàpp ne daal réew meeg umma beeg àddina bi ñëpp ñooy mettitlu mhm. la macha allah ñu ngi bokk ak yéen naqar wi parce que lu dal ci yéen dal na ci ñun la macha allah kon nii lañ koy toppee rek nii lañ ko toppee di ñaan suñu borom bi nga xam ne moom rek mooy aji ñiit yàlla ñu ñiital ña nga xamante ne ñoo ñoo réer te ñu fekk leen ak bakken loolu mën leen eh, suñu borom bi mën na ko ah, waaw du dara ci moom d dara ci moom kon nag ñuy massa wu ñëpp fatabakalla macha allah xam naa ni nag eh, mami coow li commencé tina waaw coow waaye balaa ñuy coow xam nga lu may def mm. damay dem ci kër aram jàppale bay tey euh, il nga dem kër aram jàppale ñëw ah, ah. jox ñu coca ñu naan ah. jox ñu aquatabs ñu tàbbal ci ndox yi parce que il faut que ñu liisal yaram yi tey xam nga raag day am lu mu àndal ah day na waar il faut que ñu yaram yi day na naan lu sedd day na waar tëmbal ndox mi ba mu sedd day na waar coow li daal bëri na sama sama thème bi daal dama defoon dafa sedd guy ndekete sedd euh, man ndax tey dama ñëw tey télé bi jëma attaqué léegi nag démb dama la doon muñal rek xam nga sama sama góor moom xam nga ne mu jiitoo ma topp ci ginnaaw léegi démb dañ la doon muñal rek tey moom ah dékkuñu rek. ah doy na waay doy na waay kon nag ñoo ko déggandoo. nee naa la kilifa gi ma woo ni moo yow. Ah. seen tata dégg moom xanaa moom. wareef ba wareef lay génn man waaw lu tax nga ko <laughs> <laughs> gi su paree tëdd. dafa mel ni dag ma gis <laughs> moom it dafa mel ni dag ma gis rek exactement dafa mel ni dag ma gis. li ñuy def mooy daal di ànd ak yéen dem seetaan suñu partenaire privilégié nee na. jërëjëf man xale yi dinañ ma xëy te dara sa <laughs> jotagul macha allah ñuy sant yàlla julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di remercier bu baax waa kër Aram jàppale ne la leen ñàkk fa dem erreur la ah, na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax ah, ndax xewel yi nga xam ne indi nañ ko libaas nuyu naa la nuyu sa soxna ak waa kër Aram yëpp fatabakàlla macha allah <laughs> ba ci kër arab bi waaj tijji puut <laughs> ma nekk puut ma leen toogal yow kër arab a ngi Tuubaa ba nga fa ne macha allah euh, mu mel ni kon euh, thème bi dégg ngeen ko ñu ngi ko tàmbali démb ñu ngi wax ci euh, union yi nga xamante ne ne que Vieux démb am na ñoo xam ne dañ ma ne Vieux Diouf dafa war a bind thème bi ci ci ci écran bi kon bindal leen ko ci écran bi kon femmes yi nga xamante ne ne ñoom ñooy marié wu ak jeunes yi ñu remarqué ne de de plus en plus euh, les jeunes euh, les jeunes euh, euh, xale yu góor yi de plus en plus dañu am tendance di sëy ak mère yi euh, lu tax phénomène boobu dem ba nga xamante ne ne que tas na ci réew mi nga gis ci femmes yu bëri yoo xamante ne seeni famille dina leen bàyyi seen njaboot bàyyi leen di leen reprocher naan lu tax ñuy sëy ak xale waaye tamit nga gis ci ay xale yoo xamante ne ne que dinañu dem Euh, sëy ak ki nga xamante ne ne que magee na leen juróom wala bokk fukk wala bokk ñaar fukki at ba léeg-léeg suñ toogee naan ko sa yaay ji wala boog sa mère bi ñoo ñu ku ci nekk nag ak lu la tax a dugg ci relation boobu ndax am na ci ñenn ñoo xamante ne nekk mbëggeel cofeel manque affection mhm. moo leen ci dugal ba nga xamante ne nekk ki ñuy sëyal dëgg la naam mët leen mag wala boog mët na leen yaay waaye la leen manqué woon la leen manqué woon démb euh, maa ngi ànd ak caat sama oto mu am kenn koo xam ne mu ngi euh, may woo di wax ne moom dem na ba nga xamante ne nekk xalaatatul sëy ak jeune mhm. ah, que bi fa la ëppee parce que parce que parce que parce que bëri na. xam nga mu am ci ñeneen ñoo xamante ne ne ñu ne foofu mbëggeel munu fa dugg parce que jàpp nañu ne ku góor ki mu ngi ut intérêt ak intérêt ba nuñ ko mën a tuddee. muy lu yomb wala lu yombul waaye ñoom tamit compagnie ndoy baan bi jàpp nañu ne maire ba tamit ma ngay ut intérêt intérêt bi nañ ko mën a tuddee ñoom dinañ ci ñëw ñaar ñu nga xamante ne kon ki nga xam ne yaa ngi ut ku la wéttali ak koo xamante ne ne que euh, yaa ngi wut foo fanaan kon xam nga tëjal bu walla tëjal bunt bi du leen boole mhm. kon muy ñaar ñoo xamante ne dañuy daje mu am ci ñeneen ñoo xamante ne ñoom dem nañu ba di dund charia ba lonk ko ci charia ba xam ne ginnaaw ñoom dañu ngay topp li nga xamante ne ne que moo si sallallahu alayhi wa gisoon nañu mu def ko ñu ne na kon ñoom tamit dinañu ut seen soxna Khadija mhm. jàpp ku yiw koo xamante ne sëy nañoo moom ñoom ñaar ñu d'accord ci teg ko ci lu sell ànd di sëy en tout cas daal phénomène bi existé na de plus en plus ay mag yu jigéen ñu ngi sëy ak ñi nga xam ne mët nañ leen sët wala boog mët nañ leen doom wala boog mët nañ leen rakk lool mu nekk nag lenn loo xam ne société bi ci jëm boppam ku ci nekk ak ni nga koy gisee mhm. am na ñenn ñoo xam ne euh, mami ñu ngi naan amuñu droit juger duñu mhm. waaye am na ñoon ñoo xam ne société bi jàpp nañu ne dañu leen di ko reprocher bañ ko tifaaxan ba di def ci lu ñu mën mhm. mu am ci ñeneen ñoo xam ne ñoom génn réew mi dem dund seen mbëggeel feneen moo leen ko gënal ndoy baan démb wax tamit lu am solo nee na bëri na ci ñenn ñoo xamante ne ci réew mi mën nañu accepter xale bi ku mel ni day ne en on ak off. Mm-hmm. am jabaru tubaab bu màgget boo xamante ne ne que dinañ ko indi ca kër ga. Mm-hmm. sa yaay nangu ko sa papa nangu ko say sœur nangu ko te jabar ba ma nga rasa rasa rasa rasa ras ñëw ut jënd fi kër ak yooyu yëpp ngeen di nekk di sëy soo leen àndee couple société bi du leen wax dara. Mm-hmm. te loolu ñu nangu ca jabaru tubaab boobu nanguñu ko ci sénégalaise. mu nekk phénomène boo xamante ne phénomène bu doy waar la. mami kon looy fàttali ndax ndoy baan tey mu toog yow tamit nga armé toog léegi ñun tey <laughs> Zeyna Ahmed toog léegi ñun tey <laughs> ah. dañ lay defal bi gën a yomb ah. euh, parce que ndeke mbir mi ñun fi ñu ko foogoon sax ndeke nekkul foofu mm-hmm. xam nga yow comme da nga koy sellal mm. faaw nga wax sëy bi mm. mais ñun dañuy dellu si waat ndeke ci balaa sëy bi parce que ndeke ñi ciy sëy ni ko ndooy waxee démb xam nga nag man maa gën a ñeme raak waaye su ma demee ba ca biir ma xam ne fii ma jëm am na lu fa lëndëm damay taxawaat ndeke sëy bi nag pourcentage bu ndaw a ndaw la ci mais ndeke ànd gi di def leneen moo ci ëpp téeméeri junni yoon léegi nag mag mi mi ngi xaar sëy mais ndekete xale ba moom leneen lay seet ci ginnaaw yaa dëggeen yaa yëngal réew mi ndax nag euh, xam nga ne man lu tax wareef neex ma mm. wareef day dem jël li nga xamante ne gars yi dañ ko bëggoon a wax te ñemewuñ ko wax ci kaw mm-hmm. ñu ñëw waxtaanee ko mm-hmm. mais nañ ñuy déggee ak xel te bañ ñu dégg ak xol mm-hmm. xam nga mbir mi suñ ko yëkkatee mm. man pour man ñeme yan bu dis bu doon taxa bari le mm. kon yaakaar naa dokkeer ba ca port baay ëpp la ñëpp mm-hmm. waaye kay fayeeku lu seer nga ca kaw bureau bañ taal climatiseur mm-hmm. kon nañu xam ne mbir mi mm-hmm. dooley xel la ak dooley comme ni ko Ndoye Bandi waxee Ndoye nee na Sénégal ku fiy ñaanal góor ne ko yàlla na la yàlla may dooley poos ak dooley ndigg ndax heure boo ko noppee am ñu génne la dégg ndekk ci te dund man dama man kay maa ngi leen di dégg waaw kay léegi nag <laughs> bu góor bu yéegal tension bu jigéen waaye nga dégg waaw lu ci laxas daa dégg mbir mi nag intérêt ngi ci biir kon léegi paquetu amour bi jeex na. waaw paquetu amour moom jeex na. Mhm. amour yi waxtaanee nañ leen démb. Mhm. am na ci nag mais mhm. ndekete yoote bariwul. taa dégg ndekete yoote gone gi nga xamante ne dafa bokk association maa lànk tekkee ma ñorul lekk waaw waaw liggéey dee ay nelawkaay. mooy xëy nag ndeke gis benn maire boo xamante ne prêt à porter la. maanaam comme xale yu jigéen yi ñun niñ bëggee prêt à porter bu góor noonu la ndeke xale yu góor yi bëggee prêt à porter bu xam ne boo ñëwee doo dagg wëñ doo tapp bouton. ngay ñëw rek jël sol. xam nga taa dégg euh, location dafa metti tey Sénégal nga bëgg a engagé takk xale bu jigéen bu ndaw mm. di nga ko wutal foo ko dugal mm. di nga ko jëndali yére mm. di ko jëndali leen mbes maa nag ki nga xam ne réew mi ku fi xuloog maçon boo paree dee mbaa nga tëddi hôpital mm-hmm. loolu moom dafa dagan ci réew mi mm-hmm. nga ñëw fekk koo xam ne ut na terrain tabax na ca ba noppi def na chambre à coucher boo xamante ne boo ci duggee moom da ngay mel ne ku nekk àjjana bu nekk ci kaw suuf nga ñëw nag bëgg a tëdd bëgg a ndaataa talax ci lal bu nooy di la defaral ay ginaar yu ñu njoñ di ko roofeek jinjeer wax fa dëgg yàllam taa diggéen daa yomb mm-hmm. yeneen xale yu góor yi nga xam ne takkuñu ndekkat yoote scooter lañ ciy wër ay dàll 60 mille mm. tubay bu cher chemise bu cher mm. mooy li Pape Cheikh naan waaja ca chemise ba mu xàccee ba tey dóoru mm. ndeke chemise yooyu la ñuy wër ak montre bu cher mm-hmm. mais ndeke maire yi tamit nag ñoom seen intérêt lañ ciy xool ñoomitam ndax ñenn ñi dunduñu woon mbëggeel démb mm-hmm. ci seen i borom kër mm-hmm. ñenn ñi amoon nañ coono àdduna ñeneen ñi des mooy ñi nga xamante ne dañuy toog di tànn jëkkër naan du ma ñaareeli du ma ñaareeli du ma ñaareeli ba xëy màgget ndax nag jigéen ñett yi la am jànq bi jeeg bi ak maire bi te dafa gaaw torop te ku dukk dukki sag ndaw faamu nga yommi yommi sag mag daa dégg di nga dégg léegi ci kanam. ah doy na waar kon nag euh, ñoo ko déggandoo xale yi démb nee nañu puusal paquetu mbëggeel fale ndax la nga bu ci yàgg. ñoom daal nee nañu bu ci yàgg parce que jàpp nañu ne relation yu mel noonu lu ci ëpp la mbëggeel lalu ko wala boog mbëggeel su ci amee lu ndaw lay doon kon nag fa nga xam ne xuus naa fa démb ñoom ñu ne ne am nañu yeneen paquet mhm. euh, mu mel ni ndoy baan yow paquet bi nga xam ne yàkkamti nga ko ñu tijj ko boobu xam naa dañuy dem ba deuxième heure <laughs> yaa ngi dégg baax li wala wax léegi paquetu intérêt waaw parce que moom moom bëgg na ñu tijj ay ñi nga xam ne wiisa leen ci dugal ak ay kenn xamul waaye léegi nañ taxaw ci intérêt bi nga xamante ne moom la ma mi wax nee na intérêt bi gis nga euh, xale yu góor yi ñoom on off ñu ngi cay xaar scooter. Mhm. xaar ca ay visa xaar ca ay dàll xaar ci ay nangam ak nangam. Mhm. xam nga jigéen bi tamit nee na am na ci intérêt. loolu noonu euh, ci diggante ñi nga xam ne maa ngi doon jàpp ne mbëggeel moo ko waralal ba mag lool di bëgg sëy ak xale. Mhm. yow loo loo ci jaajëf euh, taa dégg ngeen suñu xoolee. nga ne ay cougar la yow. ay cougar la ñu. Mm. luy cougar voilà femme cougar. Mm. moom lañ bind moom la vieux Diouf bind terme la boo xam ni tubaab bi ñoom ñoo koy uti ñoom ñoo ko ñoom ñoo koy utiliser mm. mot anglais la mm. boo xam ni dafa amoon benn film buy doon daw bu génnoon en 2009 fële ci mm. Amérique ñu naan ko Cougar Town mm-hmm. Cougar Town moomee moom la indi France mm-hmm. te Sénégal ak France jege woon nañ lool mm-hmm. Cougar Town ba mu dawee dawee France en de 2000 2010 dëkk ba film ba dox nag doon film bu bu bu bu dox comme sunu film yi ne ci dëkk bi ñëpp moom la ñuy seetaan Cougar Town Cougar Town le mot Cougar nag dem ci ci ci ci gémmiñu tubaab bu mujj gi mhm. en 2011 ñu doggal ko ci seen dictionnaire yi mhm. soo demee ci dictionnaire Larousse yi da mhm. fay fekk cougar lan mooy cougar euh, femme cougar c'est euh, mooy mooy jigéen ñi nga xam ne dañoo am ay ay ay ay cinquante ans euh, di soxla ay xale yu góor yu am ay vingt ans ay vingt cinq ans ba ba ba ba trente moo xam dañuy sëy ak ñoom moo xam moom xam sëy ak ñoom bépp femme boo xam da am ngoro goo xam ne mage nga nit ki génération à génération maanaam mage lu ëpp dix ans mhm. femme boobu la ñuy la ñuy la ñuy woowee la ñuy woowee la ñuy woowee kugaar mhm. xale bu góor bi nag bi nga xam ne moom ci boppam moom mooy ànd ak kugaar boobu mhm. xale bi moom la ñuy wooyee tooy booy tooy mooy jouet booy mooy garçon donc fowukaay fowukaayu xale moom la leen moom leen moom la leen tubaab yi di woowee ñooñu nag e elles la recherche de chez les gars yi chair fraîche maanaam màgget guy wut ndaw ndawal gu bees lool lool femme Cuba. te jigéenu màgget la ko lay doon jigéenu màgget bu yut gone goo gone gone goo xam ni. Mm. yàqoogul gone goo gone goo xam ni amul jabar amul dara. Mm. man fii Sénégal nag. Mm. mën ngaa am jabar mën nga am ay kii. parce que ñoom ñoom génaan yi xale jigéen yi. dañoo am problème. Mm-hmm. problème bi ñu am mooy da nga gis ku ci am jëkkër nekk ci biir këram di sëy mm-hmm. jëkkëram génn. benn femme cougar ni ko cas. Mm-hmm. nekk à à distance di gérer sa kër mhm. yow mbuum mi ngay sol femme Cuba gaa koy jënd di ko jox sa jëkkër mu la koy jox li mhm. ngay lekk moo la koy jox mhm. mooy lay fayal sa location mooy fay lépp nga def ni sa jëkkër koy def fekk benn femme Cuba moo nekk ci ruq bi di ko gérer soo dee suñu arrière tuuti vers les années fekk mère bee yor sa kër yor sa lépp yor sa jëkkër yor sa lépp yaa xam ñu takk ko wala ñu bañ ko takk ko wala takkuñu ko mais yow xamoo ci dem bitim réew suñu daan dem bitim réew pour am ay këyit dañ meeru tubaab mhm. meeru tubaab boobu ñu daan takk takkuñu ko pour mbëggeel mhm. dañ ko doon takk pour am ay këyit mhm. am na ci ñoo xam suñu amee këyit rek dañ daal di seey bi ñu demee ba gis ni sene nit ñu ñuul ñi ña ngay bàyyil ñu fekki leen ñu fekk ñu leen di fekk si fii ngay gis ni ay maire tubaab yi nekk ci dëkk bi di dox di ànd ak ay xale yu góor femme yooyu di jógee bitim di ñëw doon ay kugaar yoo xam dañu wut ay tooy booy fii ci dëkk bi léegi nag phénomène boobu nag puisque tubaab bi lañ ko daan def mm-hmm. amul woon ñuy marié ay sénégalais xale marié ay sénégalais mm-hmm. société bi kenn du wax mm-hmm. ku sañoon tey ji sa doom am am am am meeru tubaab meeru tubaab am boo xam mooy tojaat seen kër tabax tabaxaat ko yóbbu la yóbbu sa papa màkk yóbbu sa yaay màkk te kenn du wax ñu gis femme cougar sénégalaise bu nekk fii ci dëkk bi gis benn on off wala benn vieux diouf dugg langal ko ko dugg ko ci moom su ko vieux diouf wala on off bëggee takk seen waa kër lank ni di loolu du ci amee ba nga xamante ne moom mooy ñëw ci réew c'est ça injustice boobu xaw ma hypocrisie boobu noonu nga xam ni sénégalais yi loolu naka naka lañ ko gisee mm-hmm. léegi nag femmes yi ci boppam xale yi jigéen yi nga xam dañoo am entre vingt et vingt cinq ans bëgg jëkkër mhm. seen jëkkër yooyu tey jii dañ koy xëccoog seen moroomu yaay mhm. dañ koy wax de nañ ko ñu ngi koy xëccoo seen moroomu yaay mhm. te taa dégg ñi ciy takk bariwul soo waroon Sénégal maire yi ciy sëyeeg xale bu xale mais Khadija dafa tey dafa ma ni euh, am na maire yu bëri yoo xam ne ñooy nangu suñu jëkkër yi moom moom laa lay mais loolu doy waar ci du ñu ci bari duñu sëy dañuy fekk xale boo xam ne mu ngi am salaire u cent cinquante mille am benn xale bu jigéen boo xam ma ngay dajale pour takk ko mu génn fii dajeeg benn benn benn femme femme bi dugal ko oto doom yóbbu këram. Hmm. di ko may lu mat ñett yoon salaire hmm. di ko defal lépp. Hmm. jëndal ko scooter lu mu jëndal ko benn benn benn benn oto mu koy dawal leen léegi automatiquement day génnee xelam ci xale bu jigéen boobu mu doon labat bëgg koo takk mais loolu est-ce que war na tax xale yi defe ne motif bi nga xam ne xale yu góor yi takkatuñu leen mairie la parce que comme niñ ma interpellé ne ma léegi maire yi ñun ñu ñu waroon sëyal léegi suñu suñu moroom yi la maire yi di dem sëyal mm. mu nekk kon benn genre conflit bu latent boo xam ne am na diggante xale yi ak maire yi ci seen mm-hmm. gis-gis parce que ñoom dañu jàpp ne maire yi dañu dund seen dund ba pare mm-hmm. xëy suba ñëw di sëy ak seeni moroom daa dégg ñu bari ñi ngi lay seetaan mm. femmes yu bari ñu lay seetaan xale yu jigéen moo moromu Khadija ak ñoom Zeyna mm. ñu ñi ci instant bi xam nañ ni mm-hmm. ay benn mère moo taxaw di di xajamal seen seen seen relation mm-hmm. benn maire moo taxaw sëy ba amagul ba léegi mm-hmm. parce que xale boo xam ne amul comme ni ma ko amee salaire ak salaire cent cinquante mille nga jël ko di ko jox xaalis bu baree baree bari su amul éducation bu baax baax bu de base bu dëgër bu dëgër day yaakaar ni àdduna foofu la yam or xamul xamul ni mi ngi ñàkk lu baree bari mi ngi ñàkk ak liggéeyam yooyu mm. te loolu noonu xamul ni maire boobu da lay use di la mm. use ba nga xam ne nga say laaf commencé naa tooy mm-hmm. nga commencé am ay kawas yu tooy mm-hmm. ci nga la ci la mais mu tegale ne dem wuti sa morom mm-hmm. ba ngay retourné nag di seeti bu jigéen boobu am vingt ans vingt cinq ans ka a tàkk mm. dem ca moom fekk yow la nga amoon yëpp xëpp nga ko ca maire ba sa nga mooy waral nag xale yi xale yi góor yi di télé télé gi ngay dégg ni nii loolu la parce que dañuy topp ñu dañuy gis nga dañuy topp ndaa toj yi te bañ te am ndaalu bees loo xam ne war nañ ko mën a yóbbu seen kër di ca naan waaw foog nga xëy di foog ay affaire ay ndaa yu toj ak ay ndaa yu rafetal ko moo tax man la ndaa mun kii ah. rafetal ko moo xam man la tey ji da ngay dem am ndaalu bees loo xam ne nga war a jël yóbbu ko sa biir kër mm-hmm. nga topp ndaa yi toje ba toj yow mm. soo demee ca ndaalu toj la euh, ndaalu bees la ci boppam mm. day fekk keneen remplacé na la fa fekk. kon da nga wodd wax ji ni ba indi ay ndaa ko pour nit ñi comprendre li may pour bañ sa tension bi yéeg mais te gis nga lii nii taa dégg euh, gis nga dafa am ay milliers yoo xam ne soo demee nag dafa am ñoo xam dañuy dem pour nappi. xale bu góor bi dafa ñoo xam ne looloo am xale ay jeunes yoo xam ne looloo leen tax a jóg. am ay femmes fa ñuy daje fa ñuy daje. waaw maanaam ki nga xamante ne nekk maire la mag la nga xamante ne nekk dem auberge waru ko mhm. dem hôtel waru ko dem mhm. feneen waru ko te tamit bëgg na sëy mhm. yaa ngi dégg baax la fan la war mën a daje man maa ngi ca sëy ba ba léegi de fan la mën a daje ak jeune ba nga xamante ne nekk moom moo ko war a takk am na ci ñoo bëri ñu bëri ñoo xam ne joxe nañu explication ndax léeg-léeg jeune ba du la sori yaa ngi dégg ba sa jëkkër di dund sax du la sori am na ci ñeneen ñoo xamante ne jàpp nañu comme li nga ma wax sànq di nga ci ñëw léegi ne am na béréb yoo xamante ne nekk foofu la ñuy daje daje ne ña ko fa bëgg maanaam comme supermarché yow soo jugee bëgg xale di meer am na béréb yoo xamante ne soo fa demul doo ko am mm-hmm. doonte bëccëg la xale ba tamit moom mi nga xamante ne ne bëgg na meer am na fenn foo xam ne su fa demee fa la leen napp loolu nga ba wax mm-hmm. léegi nag xaw ma ndax vieux Diouf fekkente ne micro trottoir bi pare na ñu dem seetaan am na ci ñoo xam ne euh, génnuñu seen néeg seen téléphone la ñu yor seen ordinateur yow ma ne li ngeen wax yépp Euh, kon léegi kon fan la ñuy daje. fi ñuy daje fi ñuy daje woykat bi nee na foo ñuy tase. Mm-hmm. Euh, taade ngeen ma defoon micro trottoir apulaay bi amoon na. gis nañ dem fu ñuy tase gis nga mm. bu njëkkoon da nga daan dégg di ngay toog sax di ko dégg ñu bari dañ koy dégg te mosuñoo ko gis. Mm-hmm. nga dégg ñu naan corniche corniche corniche corniche fi doy fii mm. Dakar. ba ñu gaafal corniche ba ñu gaafal corniche. ah loolu d'accord naam ma ngi fay am ba léegi. Mm. mais fi mu ne nii. ci milieu bi xew léegi. Mm-hmm. mooy salle de gym yi. salle yi salle def yi ñuy def lu ci ëpp fa lay amee. dafa am ay góor ñoo xam dañuy dem liggéey ñu dara ngoon jotee ñu sol seen blouson dem salle de sport. am ay déryanke yoo xam ñoom su ngoon jotee ñu dem salle de sport. kon entraînement taxu leen jóg. Ah, entraînement taxu leen jóg de. Mm. am naa ci waajoo xam ne. Mm. dafay dafay dafay jàngal dafay entraîner xale yi. Mm. liggéeyu fa sax mais day jàppale femmes yi di leen entraîner. su ñibbi jotee moom dafa am lu ko tax a jóg mais su ñibbi jotee da ngay gis benn ni ko man daal jaabante bi fii su ma wàccee diggante bi may ñëw fii damay sonal hmm. mais dama bëgg nga ñëw sama biir kër di ma entraîné xale bu góor ba ba. xale léegi ndaw si moo koy naan dama bëgg nga ñëw sama kër. di ma entraîner. waaw ah. coach coach à domicile. coach à do waa demal euh, euh, waaw. coach coach à domicile. waaw euh, y a cours cours et cours. cool waaw coach à domicile rek ci tubaab daa am ay voilà waaw coach à lay déglu di xam foo jëm waaw léegi xam nga xam nga fa ma jëm déedéet man léegi coach à domicile boobu noonu da ngay mun la man du ma mën sama wàccee diggante bi embouteillage bi du may mën chaque jour dama bëgg ngay ñëw di ma jox cours sama biir kër di ma entraîner jënd velom wala jënd daraam ñëw waa ji ngay wax loolu xam na li ko tax a jóg yow mii wax loolu waa ji loolu xam nga leen tax a jóg ñaar yoon ngeen la la parce que tànnante ngeen tànnante ngeen ba pare mm. femme bi nag moom moo lay tànn mooy xool ci mbooloo mi ku ko neex jël ko yóbbu ko këram mm. pour mu koy mu koy entraîner mm. mais kër googu en général gi nee nga duñ dem auberge duñ dem fenn duñ dem hôtel yooyu dañuy am seen këru bopp indépendant ah, dañuy am indépendance bu bu bu bu liberté financière waaw lépp lépp dañ ko am ci biir kër gi donc mën nañoo toog ci biir kër gi di def la ñuy def napp dañ ko bëgg napp dugal ko ci biir kon xale ba ñëw di ko fa entraîner xale ba di ko fa entraîner soo moytuwul suñ ko entraîner ba pare mu la ngeen soo leen demee miin miinante ca sangukaay ba ngeen mujje soo leen mujjante ca salle de bain ba ngeen mujje ca noonu lay demee lii ma lay wax nii dafa kii mais noonu lay demee gars yi ak seetaan am na foo ne tamit dañ fay nappe internet bi Facebook bi sa yi laal ngay toog jàpp xale bi nga jàpp xale bi nga bëgg. am na de rencontre boo xam ne pour loolu rek la de rencontre mm-hmm. de rencontre yoo xam ne. mais yooyu maire yi amuñu jotu du du. am nañ am nañu koo ñoo ko gën a ñoo ko gën a raxaskatu oto yii gis nga xoolal. taa dégg raxaskatu oto yi sa chauffeur gardien ba ci biir kër nee naa la kilifa bi ma woo démb nee naa instant bi am na benn projet boo xam ne fa mhm. euh, waa ji ñaareelam ak ak ak booyam bi nekk ci biir kër gi booy bi innocent la xamul mais waa ji heure bu génnee bu fa bu fa aayewul bu fa aayewul rek moom booy booy bi ndaw si day daal jël booy bi yóbbu ci biir kër kon yow jóge nga ci intérêt waaw maanaam affaire ba léegi euh, dafa dafa mélangé mhm. dafa mélangé parce que dugg nga ci intérêt dugg nga ci vice mhm. parce que su fekkente ne ne que nee nga xale bu góor bi nga xam ne mu ngi entraîné euh, euh, amul benn occupation boo xamante ne ci salle ba sport ba lay nekk jàpp nga ne ne que mag bi nga xamante ne tamit ma ngay wër loolu il faut que mu mbubboo sport mhm. dem ci salle de sport boobu pour mhm. fekk ko fa mhm. tey tamit jàpp nga ne ne que mag dana tànn ko ci gënal ne ko lii may def nii mën nga ñëw entraîner ma ci kër ga loolu kon xale bu góor bi moom di dàq intérêt purement matériel maire ba su ma la déggee nga ne da dafay dàq vice mais est-ce que yooyu du ay exception man même ci ci côté tànn boobu ngay wax mm. ku jigéen ki mooy tànn mais ku góor ki tànnul moom liggéeyam la yor bu mu ci am baax na moom lii métier la ko jàppee mm. moom na am na am maire rek mais bu mu nekk nag maire boo xamante ne daa mel ne mi Diop nga xam ne yorul lu suukaru màdd mm. day nekk maire boo xamante ne dafay feex mm. yor lépp nga xam euh, taa dégg nga xam nga ñen ñoo ci gën a sonn mooy ñiy dem ci kër yi di joxe cour à domicile yi tamit sonn nañ torop mhm. mooy maire yi am na ci du ma ne maire yi déedéet am na ci maire yoo xamante ne dañuy toog ba yàgg ñu ne damaa bëgg a mottali sama njàng mhm. ndax jànguma woon démb ak bërki démb mhm. ut kenn ne bëgg a tukki yooyu noonu li ndoy baat di wax cours ak cours lu nekk nga fa mais am na ci beneen boo xamante ne ñoo ci gën a <laughs> na boo xam ne ñoo ci gën a sonn gis nga xale yu ndaw yi yor taxi yi mm. ak xale yu ndaw yi livré ji bagage ñoo ci gën a sonn dafa am benn xale boo xamante ne ci magasin wu Karo la nekk femme bi dafa ñëw jënd karo ba pare daal man sama kër benn góor nekku fa mm. sama gardien dama ko yónni woon te wóoru ndax dina ñëw léegeem déet mm. boole ma ak sa jarbaat bi suñ demee mu dimbali ma ci wàcceem karo yi mm. bi ñu dikkee dana xale bi bàyyil karo yi ci oto bi ki ko war a wàcce bu dikkee dina ko wàcce yow kaay dama laa soxla daa am loo ma yëkkatil sama néeg gis naa ci beneen xale boo xamante ne ndaw si li mu ko duggee woon mooy deel ñëw baax wala bokkul woon ci famille bu baax du musa ci mhm. te kooku mi ngi borom këram borom këram yor lu dul jeex mhm. Mhm. nga xam ne kon mbir mi dafa dem ba yegg foo xamante ne goro bu sànkar la day bay rek di dem kon amour ba ma doon wax euh, démb ak ah. mariage nga xam ne moom laa doon wax ñi nga xam ne ñu nga teg seen tànk si diine am na ci ñu am na ci ñoo xamante ne bëggante nañ mais ñooñu dañ leen di wàññi ñooñu dañuy dem takkante wala ñu jéem a lijjanti nu ñu nekkee ñoom ñaar rek mu jeex mhm. mais na ñeneen ñi nga xamante ne nag léegi bi mu demee nag ba nga xamante ne daf ci am ay commercial ñoo xamante ne ñoom ñu dundee la ñuy wër mhm. parce que da ngay gis xale bu góor boo xamante ne lenn lay liggéey mooy xëy entraîné mhm. yanu ay weñ ba toll ne bu ma la ko waxati nekk liir bu ndaw doo ko gis mu gor doo ko gis mu yett doo ko gis mu bay demul dikkul mais moom lenn rek lay wër mooy diryanke sama mère bi sama mère bi sama mère bi am na ci mère yoo xamante ne dañ naan la yow da nga nuroog sama doom bu gaañu da nga sama doom bu gaañ waaw taaw bi gaañ niroog sama doom boo xamante ne dafa tukki dem abandonné ma mm. wala man aw doom bu góor ay doom yu jigéen laa ko may fàttali daal nga dugganteeg moom mm. del ñëw ma di la yónni mm. ci yónnent yooyu ci lañ lay commencé di la may cinq di la may dix mille ba yàgg ñu la damaa gis ne yónnent bi dafa metti bàyyil ma jëndal la scooter bu yàgg jëndal lay daal yow xale bi da naan non non man mère bi li ma koy la tamit. du loolu du exception de ndax lan mooy exception. Mm. Euh, ñu gis xale. Mm. bu takk mag. Mm. loolu mooy exception bi. mais lii ñuy wax nii. femme femme femme femme portefeuille mm-hmm. femme visa mm-hmm. jeunes yi xam nañ loolu mm-hmm. femme boo xam ne soo duggee ci moom da lay yóbbu bitim réew ngeen ànd mu wutal la visa nga dem solo soxlaa jël avion fekk la fa wala nga toog fii am femme portefeuille so sa yaay feebaree mu faj soo feebaree mu faj toj seen kër tabaxal ko jëndal la oto wutal la liggéey ngay wut marché yenn saa yi ngay wut marché nii benn femme gis ni moom moo yore marché bi su signé lépp normal femme bi gis la nga nekk xale bu ndaw mu réglé ma marché bi jox ni goo xam ne ci marché la ci la amee jëkkër mm. am na ci ay paa yoo xam ne dañoo nekk feebar yor seenum ñaareel wala ñu yor seenum aawo mm. seen aawo bi nekk benn diriyànke bu baax bu yor ak xaalis mm. dañuy yàkkamti paa paa bi dee mm. paa suy dee nga gis ñuy see xale bu ndaw ndaw ndaw ndaw mm. fekk xale ba moo xale ba ba ñuy labatante mm. boobu paa bi feebaragul hmm? est-ce que mère ndaw si sax deful lu feebar paa pour paa bi paa bi ñu jël mais ndooy <laughs> uh-huh. na yoo xamante ne wóor na leen ne seen doom ju góor ji mère bee ko yor waaw parce que dañ ko naan sa meer bi ndax sa mère bi du ma may mbubb ndax sa mère bi du ma may lii ndax sa mère bi du ma may laa hmm. wala demal ci sa mère bi mu defal la nga ñëw defal ma am na ci yaay yoo xam ne xam nañ ne seen doom ju góor ji mère hmm. bi ci koñ bi moo koy gérer dañ moom de ni mu ko bëggee moom de ni mu baaxee ni muy fatee sama doom ji ni muy leen te xam nañ ne sa doom moo ca nekk mm. c'est-à-dire li ci gën a garaaw mooy mm. maire yooyu dañuy dem ba dañuy xam loo xamul mm. dañ lay wan loo mus sa gis xam nga damay wax ma ne doom ja nekk ca kaw ga man mi juddoo daaru salaam darma xam nga du ma jooy doomi tubaab pour fowee ko ndax xale du jooy fowukaay bu mu xamul mais dañuy dem ba dañ lay sol yeneeni affaire yoo xamante ne ñu koy jëlee bitim réew wala ñu ngi koy jëlee feneen di ko def ci café ki tee di la jox nga dem quelque temps mu dagg sa leneen loo xamante ne comme li ndooy di wax nga xëy fi say kawas tooy kon loolu tamit na ko xale yi moytu te xam ne lu suur bajantu ba mu des ab xaar ma doole ma soxla nit ne du nga xamante ne ne que maa ne du foofu affaire bi intérêt la affaire vice la ma ne leen comme jàpp ngeen ne affaire bi intérêt la affaire vice la jàpp ngeen ne yéen ay yi yéen ko dund on off nag am ci ne ma tàddi ngeen lii ngay waxtaan waxtaanee yàgg na fi yàgg na fi petit mi nga xam ne dootul wax sax petit nee na ma mais du demee noonu affaire bi très tôt ngay xam ku ci nekk li mu bëgg ñu jox la ko mu nekk mbir Khadija dafe ñëw ne ma waxal maire yi nga xam ne ñu ngi xam nga aba aba bi ci gi moom maire yi rek a ko yor na nañ dem publicité di fàttali ne ñu ngi ànd ak Coca Cola mi nga xamante ne euh, euh, moo ñuy wéttali ci bépp cérémonie ah moo ñuy wéttali ci espace familial yi yëpp fa tabakalla macha allah ah, mi nga xam ne am na petit modèle am na pack leader waaye tamit am na coca cola rafraîchissant goût classique bi ngeen xam ne ñëpp xam nañ ko ñu indi ñu beneen coca cola boo xam ne même goût la waaye coca cola zéro nga xamante ne ne que amul suukar amul coloris te excellent goût rafraîchissant ñoom ñaar ñëpp ñoo yem goût loolu nañ ci bàyyi xel coca cola mi nga xam ne daal moment de plaisir moment de joie moment yëpp moom moo ñuy accompagner ci biir kër gi rek ci cérémonie yëpp ñu ngi ànd tamit ak aqua mi nga xam ne nee naa leen comprimé bi ñeenti dërëm lay jar di sellal paanu 20 litres ah fatabakallah macha allah nga xam ne jamono sax dafa ko laaj mhm. nga daal di eh, pëyi sa benn comprimé ak waa taps xaar tuuti ndox bu sell nga daw di ko jëfandikoo loolu lépp nag la macha allah ci biir wareef la xewee ñu dem léegi dellu si ànd ak <laughs> jinne réalisateur yi maire yi nag garaawul nañ ñu baal xel seen kokaa def seen cing cing jël ak waa taps dugal ci ndox mi rek jàmm ne benn waaw léegi nañ dem dellu si rek nañ dem man daal li ma gëm mooy maire ak jeune sëy ci bëggante bëggante ñu sëy ni nga xamante ne nekk fatabakala macha allah am na ci ay bëggante yu neex nag. ay bëggante ay bëggante sukkandiku ci diineeg lépp waaye ndoy baan xale góor yi ci télé bi yëpp ñu ne loolu amul nañ dem dellu si Vieux Diouf